Euh, sama teewaay d'abord moy ñew woné vraiment sama mbégte sama mbégte ci li ci def di def depuis ay ati at ci walu njàng mi ak njàngale mi na nak bi moy ñettelu édition foire des innovations en éducation et formation dama japp ni foire bi dañ ko wara inscrire manam bind ci suñu agenda agenda école bi agenda état bi ndax lu am solo parce que dañu japp ni euh, moy en tant que leader du mouvement Demain c'est maintenant que candidat à l'élection présidentielle nous la am lo xamanteni ci ay djégo def nañ ko ci infrastructure mais dafa am infrastructure bu des moy biñuy wowe infrastructure citoyenne buñu bëggé sénégalais bi citoyen bi depuis bi mu nekkee gone ba mu doon mag foog ñu jaarale ko ci njàng mi ak njàngale mi ak ci tàggat bi maanaam formation boole ci maanaam cosaan bi aada ak cosaan maanaam culture ndax njàng ci la ñuy jëlee xam-xam njàng ci la ñuy yaree xale mais yar mag aussi parce que xale moom mooy mag te buñ ko doorewul foofu di nga gis ko xamanteni mag bo xamanteni xeyna mag la waye amna li dess ci mom parce que liñu ñu def ci mom defuñ ko donc dañuy yar dañuy joxe xam-xam mais dañuy tagat tay gi ñu ngi wax xalé yi ñu ngi jël galu looce yi di di tukki mais justement ci tagat manam formation lañ lay permettre nga am ay jumtukay pour am liguey wala sax ci sa bop nga créer sa entreprise def auto entrepreneuriat ëllëg yow ci sa bop nga nek un employeur nga boole ci nag aada ak cosaan bi ndax aada ak cosaan mooy ñu xam suñu bopp fan la ñu jógee lan mooy suñu histoire lan mooy suñu valeur mais aussi gunge nit ñi sénégalais yi ci seen xaral la ci seen xam-xam ci maanaam création industrie culturelle ak production boole ci nak patrimoine bi nga xamante dañ ko wara fexé bañu préserver ko loolu dal yeb buñ ko boolee loolu moy tax ñu am une infrastructure citoyenne de développement té loolu buñ ko défé Sénégal dina ci gis njëriñ bu baaxa baaxa baax